te bu fekkee ni nañ élection du am te dëgg la ci ñoom ñoom buñ campagne mukk kon nag loolu mooy wax wane Sénégal rek ñoom dañuy sóob di wax ci kaw waaye lañuy wax ak lañuy ñuy nar bokkut di wax waa Sénégal yëpp di jël témoin ci Sénégal yëpp wax ne président de la République Macky Sall ñëpp dégg nañ li mu wax démb gis nañ fii Touba ay diabolisation dafiy am gis nañ barki démb fële ca Sénégal ñu fay wate benn projet de loi boo xam ne malgré amul sax mbirum góor jigéen waaye dafa am lënt mais loolu Sénégal ak Libye gee nga xam ne sax amul état Sénégal rek ci état nga xam ne république la et Sénégal moo taxaw lank ci ndigalu président de la république ne loolu kenn du ko wate ndax liirut kon jàpp naa ne ñi nekk fii ci Touba surtout ñu leen di wooye ay imam ñoom lay waxal yàlla dane yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen ñii nga xam ne da ngeen a gëm yàlla te gëm yonente bi bu ñu leen indilee ab xibaar da ngeen koo war a gëstu ba mu leer rawadina koo xam ne da ngay nekk di xutba ci jàkk wala ngay wax mbooloo di la diglu bala ngaa wax ci mbir war nga cee am lu la leer naññ te bari na fii ci tubaa ñu bari ñoo xam ne dañuy wax lu bari ci luñ xamut dañuy gis ay textes yu ñu maîtrisé di ci wax ay nit ñëw wax leen ñu koy wax ngir seen i farfarloo jàpp naa ne nag képp ku dem bay wax ci kanam mbooloo ay mbooloo di la diglu rawatina ñu ñu lay tuddee kilifa ak ñoo ngi leen di en garde képp koo xam ne wax na ci loo xam ne ndax ñoom ñooñu diine lañ jàng waaye ñun ñu ngi politique tamit diine lañ jàng ci daara yi lañ jógee texte yàlla yi gënuñu ñu ko maîtriser te gënuñu ñoo gëm yàlla gënuñu ñoo bëgg Serigne Touba gënuñu ñoo gëm alxuraan président Macky Sall mii ñu àndal loolu ñuy wax bu nekkoon ci moom ñun ñu duñ ànd ak moom suñu liste bii ñu jiite sëtub Serigne Fallou doomi Serigne Alaaji Baara moo ko jiite ci ndigalu Serigne Mountakha loolu bu amoon lu diine amul Serigne Mountakha du ko santaane na leer Serigne Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma di doomi Gaynde Fatma nekk ci biir liste ba loolu bu ci lu lënt nekkoon duñ duñ te dem li tax ñuy wax ci loolu nag dañoo xam ne Touba ñun dañuy campagne ba sonn waaye ñi fi nekk di campagne ñoom amuñu benn wax amuñu benn kàddu lu dul ay waxi waaye di ay waxi góor jigéen ay waxi góor am na député bu ñu fi jàpp barki de moo ko wax ju ñaaw joo xam ne dafa gàcceel képp ku dëkk Touba ndax jàpp naa ne Touba ku fi dëkk exemple nga war a doon royukaay nga war a doon malgré sant Mbàkke jëlee naa nga sant Mbàkke mais royukaay nga war mais député boo xam ne bu ñu la gisee da ay tuñ di takk ay ceen di xeesal te fu ñu la gis waxi góor jigéen ngay wax mel na da ngay def promotion góor jigéen te kenn mënta dégg sa làmmiñ wax ju rafet saaga nga nekk assemblée nationale ak ak wax lu ñaaw loolu de ñun bokkuñ ci woon ñu ko wateel 2017 ba mu dem assemblée nationale waaye ñoo ngi ci bàllu waleel ak képp koo xam ne wateeloon nga Abdou Bakary Bara Dolly moom ba mu dem assemblée nationale te wax ju ñaaw ju wax ñu bari dañuy jàpp président de la république waaye wax na ko képp kuy jigéen ci réew mi ndax dañu képp ku nañ la kon nag képp kuy jigéen di yaay wala ngay jigéen bëgg doon yaay wax ju ñaaw jooju yow la ko wax loolu nag li ñu ci wax waa Touba ñu am fulla am fayda moom moo nekk ci beneen liste bi nga xam ne moom mooy liste euh, opposition yi bu fekkee nag wax ju ñaaw ñu bëgg a cautionné ñoom bëgg cautionné wax ju bon loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne képp ku nekk Touba waroo d'accord ci loolu waroo cautionné loolu loolu nag mooy sanctionné leen liste bi nga xam ne nag ci la sëti Serigne Touba yi nekk ci la nit ñu yaru yi nekk ci la ñuy bëgg a liggéeyal Touba nekk bilan nga xam ne président de la def na ko ci la nekk jàpp naa ne danañ ko bu baax am na erreur bu ñu daloon nag ci élection locale yi démb dafa am sama benn xarit bu ne ma ndax conseil départemental am na man ko damaa gis ne bañ fale ba ñuy wate yëgoon naa ko waaye bañ falee ba léegi dégguma ko wax dara ci conseil départemental mais ko ba ka mën a liggéey conseil départemental di ànd ak état ba leen ko waxee da ngeen a lànk jox ko ñoo xam ne ay opposition lañ bu ngeen leen ko joxee duñ toog lu dul ca boîte ba rek di lekk seeni salaire ba nguur ga ñu dellu loolu waa moom lañ jëlaat def ko ci liste waa Mbàkke nag am nañ fayda yéen waa Touba nag laay waxal waa Mbàkke ma Abdou Mbàkke Ndaw ñu mu faa taxaw di leen wax dara ak la fa galo dem waa Touba nag nañ am fulla nañ am fayda bu dee dañoo bëgg développement ak réalisation yi président de la République def nañ ko jox ay député yoo xam dañuy taxaw di défendre président Macky Sall loolu rek mooy wax ji maa ngi sant ñëpp Serigne Abdoulaye Lahad daf ñoo waxoon ne képp koo xam ne lebal nga Serigne Touba ci dëkkam bii muri ci Serigne Touba yi ñoom ñoo la war a fay ñun nag bëgg a bokk ci fay googu nga xam ne warees na koo fayal Serigne Touba kii nga xam ne mooy le président Macky Sall moo tax ñu dajee tey jii fas yéene bu ñu demee ca fee nga xam ne fala ndawi réew ma di toog ñu fay natte kilo ceeb lu muy jar di fa natte liitarub diw li muy jar di fa xayma lépp loo xamante ni si mooy doxaliinu réew mi suñu àggee ca bërëb booba ña ñu fay toogal nekk ay nit ñoo xamante ni si nit ñu ñu xam lañuy doon ay homme de qualité lañuy doon ay nit ñoo xamante ni sii ñu am valeur la ñuy doon duma dellu siwaat ci ñooñu léegi ndax Basiiru Mbuub wax na ko léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk te nekk ay doom yoo xam ne ay sëti Sëriñ Tuubaa lañ waaye ni mu waxee léegi ci ne nit bu ñu la indilee xibaar te alquranul karim wax ko ne na ngeen saytu loola ba xam lu wér la lu war a génn wala lu wër te génn ñu bàyyiloo xel ñi ci dëkk bi ne ndaw ñoo ñii nag ñoo jóg ngir leeral dëgg ngir leeral dëkk bi li nga xamante ne sii mooy dëgg te mooy li nga xamante ne sii moo leen di jariñ te mooy li nga xamante ne si bu ñu ci jàppee jàpp nañ ci li nga xam ne njortu nañ ne jàpp nañ ci bëgguk sëriñ bi ndax koo xam ne sëriñ bi moo la wax ne li ma yéene ci yow sama bopp doyuma ci sëriñ Tuubaa moo ma ci doy kon yéene jooju jàpp naa ne bépp ndaw wala képp koo xam ne nekk nga ci dëkk bi ci dëkkub sëriñ Touba bi war ngaa fas yéene dugg ca yéene jooju yi loolu yi nag la ndaw ñi xam tax ñu jóg jàppoo def benn bolok fas yéene nag dugg ci dëkk bi fépp fu mën a doon fu suñu tànk jote fu ne ñu dugg fa wax jëf yi nga xamante ne sii jëf na ko waaye ñoom la nga xam ne seeni yitte la la nga xam ne mën nañ ko ci loola yi tamit ñu def ko bokk na ci programme boobu muy daaray alquranul karim yi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi te bërki dem ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moo ko waxal boppam ne bëgg nañu dimbali ko ci daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi rawatin nag fii nga xamante ne sii mooy Touba ñu wax leen lan mooy mébétam wax leen lan mooy bëgg-bëggam jàppale leen yi tamit ci ñoom la nga xamante ni sii moo nekk seeni bëgg-bëgg te loola it bu ko waxee kon delloo na xelam ci waxi yonante bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonente bi moo ñu waxoon ne almadaris qabla almasajid loolu mooy lan mooy nit ki balaa ñu koy mën a dénk jumaa wala jàkka la war a jiitu ci moom mooy ñu jàngal ko ba mu deñ ak réer jàngal ko ba mu dégg feq waaye mu jàngal ko ba mu xam xeeti xam-xam yi nga xam ne su ko sàlloo dana mën a jiite nekk ca kanam kon loolu nag dafay delluwaat ci ñi nga xam ne dañ doon jaf ay tuuma wala ñuy wax loo xamante ne si xay na dañ koo dégg te gëstuwuñ ko bay wax na ci ci réew mi dañoo am yéene lii nga xam ne ñooy borom ñaari tur yi ñu am fi cër te loola wuute na lool ak li nga xamante ne sii mooy bëgg-bëggam bëgg-bëggam nekkul lu dul nit ñi mën a dund ci jàmm nit ñi mën a liggéey ci jàmm waaye yi tamit daaray alquran yi tamit mën a def seen liggéey ci jàmm ni nga xamante ne si noonu lañ ko baaxoo xamee ci dëkk bi moo tax mu ne nañu ko demal ci daara yi xool seeni soxla ñu def ca la ñu man te loola nag mooy programme ndaw yii nga xamante ni ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar muy Alliance pour la République bokk nekk ci biir muy APR ñu fas yéenee dem ci ñoom yi tamit wax leen li nga xamante ni si mooy mébétum njiitu réew mi waaye yóbbaale fa yi tamit ay kayit yoo carte yoo xam ne loolu yëpp ci politique bu président Macky Sall la bokk nga xam ne donga bu ci nekk boo feebaree sa jur bu ci waroon a def ñaari junni du ca def sax ñeenti téeméer te loola yaakaar naa lu ama am solo la ndax ñun ñëpp ay dongay daara rek xam nañ ni ñoo ngi jub nawet te dongo yi tamit tawat da leen di yomb ndax loola la yàlla def ndax ci bii ay ya ñuy nekk loolu noonu dafa yomb lool kon loola nekk bokk ci programme ndaw ñi waaye bokk ci tamit daara joo xam ne dem nañ fa lépp loo xam ne wax nañ ñu ko comme bëgg-bëgg ñu def loolu yaakaar naa doyoon na sëkk rek nit ki nga xam ne jooyal na xelam def ko ci daara yi def ko ci quartier Senthiane yi su la laajee ay waat yi nga xamante ni si mooy tax nit ñi mën a dem ca fa ñuy natte ak di fa loola ñu jox ko ndax nii mu wax léegi ñun ñii ñëpp képp koo xam ne tey jii ñi ngi lay tudd di tudd Serigne Touba boo ko waxee boo ko waxut rus nga juróomi at yoo xam ne taxaw nga assemblée nationale musoo faa wax benn yoon lenn loo xamante ni si njariñal dëkk bi la musoo faa wax benn yoon benn aaya min ayatil quraniya mu jaar yoon wala nga wax min benn ci ahadis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jaar yoon te loola yaakaar naa gàcca la nit ki nag fa nga nekk turaas ba nga xamee ni moom la la yàlla bàyyee loola moom nga war a sàmm te loola mooy ñu sàmm dëkk bi sàmm ndonal Serigne Touba yi loolu nag mooy ndaw yii nga xamante ni si ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar loolu lañ fas yéenee def ci fan yu néew yi bëgg nag nit ñi comprendre loo ba buñ demee ci élection yi ñu wooteel lii nga xamante ni si mooy liste Benno Bokk Yaakaar bi te ñoo ñii ñu leen a nekk di ay kilifa waaleykum salaam wa